dégg nga gars yi yaa ngi way naan ñoom Modou loo lañu bëgg waaye ñun suñu internet yi rek la ñuy topp internet yi ku dul ñoom ñun itulooñu <laughs> donte ak ku ñu mënti bëgg it duñ ko feeñal ci ci direct bi waaw ku ñu mënti bëgg it duñu ko feeñal ci direct bi waaye daal li nga xamante ni gis nañu ko fii ah kii Malick Ndaw nee na Modou Lo sël tay jaaxa illallah Babacar Ngom tamit mu ngi ci biir direct bi ah gis ngeen ko noonu nag yaa ngi noonu xar yaa ngi noonu luñ leen digal ci saax rek ñu def ko waaye man dama fee gis loo xamante ni doy na waar de benn xar boo xamante ne xaw ma dafa loof xaw ma dafa feebar xaw ma daa sonn waaye daal gis noonu ko Baye Fall yi jël supporters yi gars yi ñuy gën di ñëw ñoom it dañoo bëgg woon waa jàmm gën këñi lu ngeen mën a ci mobilisation ñun duñu të gis ngeen ko noonu waaye gars dañ leen di dàq gars yi dañ leen di wax ñu arrière ndax ñoom ñu mën a def tamit seen i débat dem ndax am na ci yenn yoo xamante ni ñoom ñu bëgg sax presque gis ko waxuma laak supporter yi waaye ak lu ci mënti am ñu ñu daal ni ñu koy defee toujours rek dinañu jéem a sacrifié wu ñu def suñu kéemtalaay kattan ba taataanal la lépp li nga xamante ni war na am yi fii ci Parcelles Assainies yi comme suñu confrères yi nga xamante ñoom ñoo nekk foofu ca jàmm gën incha allah ni ñu ko bëggee xemem tëf boobu yàlla ñu ko yàlla ji doolele ba ñu matale loolu mooy lan mooy lépp loo xamante ne bu ñu ko defee ci couverture rek mu doon seen mbégte lépp loo xamante ne bu ñu ko defee comme couverture rek mu bégloo leen lépp loo xamante ne bu ñu ko defee comme couverture rek ngeen am ci contentement boo xamante ni bi ngeen ne waa waa waa waa waa Yeumbeul Vision waa Dakar waa Info waa Sen Teranga ak ni ñu ngi fi nekk yëpp ndax tamit du ñu mën a tudd ñëpp glace gaa ngoog waaw waaw lii mooy na sedd rek lii mooy na sedd rek ay loolu la na sedd rek te moo war a gën sax eh mi ngi noonu teg na benn glace bi glace baa ji door na jëlaat na benn glace bi lii mooy na bés bi sedd te daa war a sedd te daa war a sedd waaw waaw tegaat na beneen bi seen mi ngi noonu waaw na sedd de donte nag bi tàng na waaye ñun yitte woon nañ lépp sedd glace gaa ngi noonu luñ leen ko ah waaw toj na ko ci buntu kër gi toj na ko ci buntu kër gi toj na ko ci buntu kër gi mais lii daal mi mis nañu ko ci làmb lu weex daal diggante soow ah làmb dafa mystique diggante soow diggante glace mburu ah kii la ah mooy yaay Modou Lo ndeysaan yaay Modou ngi noonu oh ndeysaan lii yaay rek ko yaay Modou ngi noonu dugg na mu ngi def tout weex moom it xam nga li may wax léegi dëggu na ah bi jëlaat na boolu glace bi ñaari glace ci des ginnaaw bi ñu tojee benn bi jël ñaari. am fuñ ko teg ah. lamb jaa ngi nii ah mi ngi koy for dugal na ko ci biir kër gi. mi ngi koy tibb di ko dugal ci bunt kër gi mi ngi koy tudd tibb di ko dugal ci buntu kër gi. mi ngi koy tibb di ci biir buntu kër gi Ibrahima naaj bi du ki sa température bi. waaw. gis ko noonu. ñu ngi wis ndox mi waaw na sedd rek lu mu sedd doy lu mu gën a sedd rek gënal ñëpp xoolal ma lii xoolal ma lii xoolal ma lii rek laa ilaaha illallah waaye fii déggoo li ma la wax sànq nee naa la buñ ci amee ku ñu wóolu koo xamante ne nee naa leen bésu combat bu leen xëyee fajar leen Tamba ñoom lu ñu lu mu jar nañu ko jaayante mais it ñuy jaajëfal waa kër gi xamante ne ñoom ñoo ñu may opportunité bi ñu ñëw fii. suba teel lan leen yee ñun yee. donte ñoom sonn nañ ndax am ambiance bi nga xamante ne mu ngi am diggante fan yi ba tey jii rek ñoom sonn nañ tey ñu ñu ñëw yokkal leen lii jéggalu nañu ko bu baax a baax a baax te xam ni du dara lu ñi nga xamante ni amuñu opportunité surtout waa diaspora bi ndax tamit am na ci ñoo xamante ni à travers suñuy yi la mën a dundee Sénégal mhm. à travers suñuy direct yi la ñu mën a xamee tey ambiance bés bi ndax lii mooy ambiance bés bi feeg ci kanam tuuti ñun ñëpp dañuy dëgmal foofu ci stade ba mhm. te stade ba ñi nga xamante ni daf leen di ump du bari donte PPV yi la waaye ñu ci bëri dinañu koo jaayante waaye lii mooy cafka bi mhm. lii nii mooy cafka bi diggante départ bi préparation bi ambiance bi am kër ba moo li yi ñëw nañu ah, yee leen waaye ñu koy tuubaat bu baax a baax a baax ndax da dul teggin ah, ñu ñëw waaye ñoom it ñu yombalal ñu ko ah, teg ñu ci condition yu baax yombalal ñu lépp kon remercier nañu leen ñoom ñëpp bu baax a baax a baax bu ñu nuyoo suñu maire bi rek nuyu nañu waa kër gi yëpp waaye daal waa parcelles yaa ngi gën di ñëw comme sànq dafa amoon ku bind ci commentaire yi di ko di mbalak waa parcelles yi naan <laughs> parcelle amul ambiance man ko mani ko mani ko déedéet xoolal ndox mi ndox maa ngi noonu yes ah. mani ko mani ko mani ko déedéet xoolal ndox mi ndox maa ngi ngay gis te te sëriñ si ñëwagul ñoom sa dëgg la nee nañ Siteu ëpp ci ci làmb ji mais tamit Modou Lo it kenn damul mu des parce que avant waaw waaw avant te Modou Lo nee na ko maa la gën a xotteeku uh-huh. donc comme combat am la combat boppam la nee na leen sama combat bopp la waaw donc Siteu na na ñëw bëre na ñëw bëre comme si que magam lay bëreel frère lay bëreel parce que tamit du mbër moo xamante ne da ngay ñëw rek wallaay du wayaa wayaa wayaa wayaa déedéet doo mën a sa bor muy tële boram de loo rek loo rek ku dem ba génn ci Boy Niang Ama Baldé ci jamono ji yàlla xam na ko yaakaar naa buñ ne mën naa génn ci Siteu kenn du ko weddi xam nga loolu li tax ma koy dëggal hmm. Ibrahima tey bës bi day sedd li naaj bi di tàng tàng bés bi day sedd mer bee ngi seddal lépp de la ilaha illallah moom ne mi ngi jël ay paanu ndoxam di tuur rek ma ni ko jërëjëf yaay booy ah, ay bay li moo gën sax lu mu gën a sedd gënal ñu donte naaj bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi sax si <laughs> waaye daal ñu ngi koy jaayante waaye comme li nga wax sànq léegi Maodo hmm. euh, Modou Lo kenn dootul naa taple mën bëreem ci ahlu làmb ndax gis nga titre roi des arènes ñoom ñii ñëpp muy ki gën a ndaw ci mbër yi ba ci gën a mag bëggul lu dul am couronne roi des arènes kon ku dem ba am couronne roi de arènes amatoo looy prouver donte kay lenn moo fiy nekk mooy ñi nga xamante ni bëgg nañu la ñi nga xamante ni dawuñu ngir kenn ku dul yow da ngay jéem a conserver loolu te Modou Lo ci loolu la nekk waaye démb danoo dem ca jàmm gën <laughs> gaa naan <laughs> couronne bi ñëw na may leen laa man de xel mu dal xel mu dal xel mu dal ngeen ci àndal man moo ma yéem waaye nag san nanu ko ñoom ndax gis nga lii nii dafay baax mooy nga am ci benn xel bu daal boo xamante ni yow di nga mën a rassurer say supporters donte yàlla nag mooy maye mbaa xam nga benn affaire uh-huh. muy Modou Lo ah Ibrahima muy Siteu kenn ñaanalu ma ko ci kenn waaye ku ci ñàkk it dem rétéo laaj ma lu tax li war ci bés bi yëpp matale nga mooy entraîné nga ànd nga ak say mbokk jox nga cër bés bi wàcc nga ci côté yëpp nag te aussi jaay nga li li làmb ji ndax promoteurs yi tamit ñu tëggal koo xam ne daa mel ni amaat rek koo xam ne kenn xamu ko déedéet dañuy soxla koo xamante ni am na ginnaaw. koo xamante ni bu nee bërët ñoom Ibrahima Diop. lambee ni toll. wallaay ne sax lambee ni toll. mais daal ñuy jaajëfalaat bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp ah. ndax ku si mel ne. Kolo dégg nga gars yi gars yi commencé nañ day sant. Kolo Kolo. waa parcelle yaa ngi ñëw ak moto yi. ak moto yi. waa parcelle yaa ngi ñëw ak moto yi. waa parcelle yaa ngi doon di classé. daa mel ni Modou Lo mooy ñëw noonu. daa mel ni Modou Lo mooy ñëw. na Modou Lo yegg si. day jaaxal la laaj la ma xale yi eh waay ndaw Samb. lamb lamb ji du yomb amaat. déedéet mënut a yomb. lamb la joo xamante ne nii dootu fi amaat su amee ba pare incha allah. wallaay ndeysaan gis nga ko noonu xale yaa ngi noonu di gën di ñëw. sànq li moo mbay neeru Modou Lo bi. ndeysaan <laughs> dañoo bëgg mbër mi. wallaay ndeysaan dañoo bëgg Modou Lo. gis ngeen ko noonu moom ay couronam la yor. démb démb ma demee ma demee jàmm gën ñëpp laa gis ñu ay kuréel man leen mais yéen teel nga di wala ngeen koo jël gars yi ne moo yow xam nga ni loolu fanaan ak fa ma fanaan ak fa bàyyi may leen ah, ah dara yàggul moo loolu ñu leen di dégg dara yàggul sa waaye ngi moom indi ufëram moom di di di ambiance jëlal ñoom te ah, di way di ambiance lamb ambiance la lamb ambiance la sama copain ngi nee golo bi waaw moom moom dama ko faa moom tooñul kenn waaw fi mu ko jàpp la ko jàpp waaw gis ngeen moom fi mu ko jàpp la ko jàpp amul amul kenn ku ko dérange moom it dérange ko toog ñëw jox banaana mu nekk kay jox ko banaana mu nekk lépp nekk nañ ko nekkee non lii lamb bi nar a neex la ma mère bi bu baax a baax ndeysaan sama mère la. ndeysaan maay rappelé wu temps école jëlal sa waay jëlal gars yi. gars yi commencé de lumière yi. mais ñoom ñu ngi mel ne jóge nañ ne sànni. waa Côte d'Ivoire ñu ngi ci biir direct bi. gis ngeen ko de yéen a moom lii yéen moom direct bi. Kora maa ngi sa Saliou Ngom nee na Modou Lo rek gars tàmbali nañ de ñi doon laaj waa waa waa waa parcelles yi seen ambiance ambiance parcelle a ngi ñi doon laaj ambiance parcelle bu jéggi dayoo sax wallaay bu jéggi dayoo ndax leen de xam naa ko Ibrahima mooy waa jàmm gën yi xam naa ne duñu mën seen boor waa waa parcelle yi seen boor déedéet déedéet ñoom duñu ko nangu duñu ko nangu waa États-Unis tamit ñëw nañu Habibou Sow Modou Gueye waa Espagne Serigne Fallou Diouf jaajëf diaspora bi ñëpp nuyu nañu leen waaye moom mi ngi ko tëf offeur bi rek a ah? ah, a a jàpp ci yëf yi ah, sa waay ngi fecc lu rëy moom waaw waaw ah waay eh waay ndaw Eh. Babacar Niang Babacar na victoire rek. incha allah Babacar Niang ñu ngi koy jaajëfal. Jaxate Moussa. Jaxate Moussa Ablaye Seck. Moussa Dieng. Penda Tall nee na ndam rek. Penda Tall. Penda jërëjëf. Penda merci beaucoup. Fatou Ndiaye may nañu kër yi. Oumou Diallo nee na ndam rek. ah Oumou li leen di wax noonu la. Abdel Aziz Tall mi ngi fi lépp lu fi am incha allah lu fi nar a am di ngeen dinañ ko bokk ak yéen. gis ngeen ko noonu gars yi ñoom ñu ngi ñu nag li muy tàng yëguñu ko. lu mu tàng tàng tàng tàng si. day day taxaw naaj bi wàccoon ba taxaw seen digg bopp yi duñ ko yëg. ndax bëgg-bëgg moo mel noonu. Mhm. gis nga léegi-léegi wax na ko Ibrahima. Mhm. ñoom yi tax ñu bëgg Modou Lo boo leen ko laajoon duñ ko xam. wallaay <laughs> rek ne ko eh, alaaji na nga def waaye yow amoo da nga bëgg Modou Lo kon li ma wax sànq rek muy képp koo xamante ni yàlla may na la tur ay nekk sa ginnaaw mel nii. Mm-hmm. wallahi loo oyof seen kanam des na. wallahi des na. loo leen jaajëfal des na. wallahi des parce que ñoom yi it ay doomu jàmbur lañ ni yow. ba ci kër gi ba léegi yàlla maase ni ñoom ñii nekk sa ginnaaw waaw buñu ko gaañ noonu mm-hmm. sécurité yi ñu ngi noonu. Mm-hmm. moo loo moo rek moo def na ay def na ay sarax. dem ci daa dem ci daara yi joxe fa ay mbir. waaw gis nañu ko moo tax keroog sax ci biir open press bi gars yi laaj nañu ko loolu. Mm-hmm. mu ne man baaxoo naa def yu demee noonu doon sax bëgguma muy fës. wallaay waaye comme comme question bu nekk dafa war a mën a am réponse. Mm-hmm. moo tax ñu wax leen loolu waaye yooyu samay mbir la. Mm-hmm. ma ni ko daal rafet na. loolu man nangu naa sax ñu ko ciy wax en public ñëpp di dégg ndax loo xamante ni nit ki bu ko defal dara du ko ci fekk mm-hmm. wallaay bu ko defee rafetlul loolu bu ko defee rafetlul loolu nit ki du fàtte surtout buñ la defalee loo xamante ne lu baax la mm-hmm. boo mënta wax ba àdduna dégg ko mm-hmm. jëfal ba ñu gis ni kat ah kii am na acteur reconnaissance bi nga xamante ni defal nañ ko parce que parce que loolu ay te moo loo bu joxe dara yi mbër bi ni waaye ah galaas ba glace ba mu ngi tolluwaat sama glace eh glace bi dëgër na bopp de c'est eh waay tas na loolu mooy force da ngay tas wallaay loolu mooy force da ngay tas ndax loolu lan ma wax ma def moo tax tas na mooy jàmmam de. fas yéene yeneen dëtmal lépp lu nga xamante ni moom moo fi am ci buntu kër gi départ Modou Lo bi gis ngeen ba léegi gars yi ñu ngi indi sarax yi mburu yeeg lépp a ngi nii. mburu yeeg lépp a ngi ñëw ngeen maire bi ndeysaan moom ku song ci tànk ba léegi mu ngi xëpp ay ndox ah tàntaay mooloo la xale bi nee na ma tàntaay mooloo moo nekk noonu sanq ba léegi mu ngi xëpp ndox di saraxee gis ngeen ndox maa ngi noonu ndeysaan lii day wane ne lambu yëfu mystique la wante lambu rek nga mën a gisee yi lambu rek nga mën a gisee lu mel nii mbokku internet yi ñuy seetaan si Dakar Plus Univers Info ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen jaajëfal it seen taxawaay ci ni ngeen di def di seetaan live bi di ko partagé seen ñeneen ñi nga xamante ne nii bëgg nañ ko gis ñu gis ko ñu ngi noonu di gas bunti kër Modou Lo booy may ma tuuti ma xool loolu ñu ngi noonu di gas bunti kër Modou Lo xam nga lan lañ fa nar def nag. lii doy na waar trop Modou Lo ngi fii si buntu këram ñoo ngi fi buntu kër Modou Lo fas yéene leen ma lépp li nga xamante ni moom moo fi am fii bay Modou di déparé di dem stade war a bëree diggante mag Siteu dañu amoon benn dog-dog rek ndeysaan Modou gis nga mu noonu di gas moo ngi noonu di gas bunti kër Modou Lo gis nga sëñ Mor gis nga sëñ Mor mais lamb ji nar na neex sëriñ si a ngi man nag lu ma jaaxal si Modou Lo lu ma jaaxal si Modou Lo mooy moom sëriñ si dañoo wàccee ay sëriñ oyof la amee da nga leen ñi doo leen xàmmee lii mooy làmb ñu leen di wax nag ngeen sa waay mu ngi gas rek kenn xamul la lay gas nag di leen wax na ngeen continuer di suivre di partager live bi sa waay mu ngi gas rek làmbam ni mel tey fii li nga fi di li fi gis lu nekk di nga dégg lu ne wallaay waajaa ngi noonu di gas mu ngi mu ngi noonu di gas kenn xamul lan lay gas waaye ngi gas cawaay yaa ngi gas xamuñu nag ba xam xamuñu lu mu ci war a suul lan lañ ci war a suul mbaa lu muy def ci pax xanaa xanaa nekkul dañ ko gas pour tuuti galancé moom ah wala ba xam daa am lu ñu war a rendi doy na waar de am na ku ñu génnee nee nañ ko na dem nee na ko yow bokkoo ci ñun mooy de. na dem. lii mooy bokkoo ci ko na gem. ku xam kuñ kuñ fi miinul kuñ fi xamul duñ la duñ la faale. wóoluwuñu waajaa ngi noonu gas ba léegi noonu fii dong ñu lay ban nga seen appartement fii la dëkk fii fi nekk nii dëkk nag la moo tax mu bëgg ñoo génne. moom koy aaye noonu daf ñu koy aaye doxam nga ko waaye eh. téew gaa yéen ngi gis ah fiil bi fiil bi xaar leen rek ñu am lu ñu réglé tuuti ñëwaat ci commentaire bi ndax euh, dafa xaw a am benn bouchon bu ndaw waaye may la ñu rek ay une minute trente secondes la dóor loolu réglé loolu ñëwaat ci waxtaan bi incha allah masse moo tax mën a masse masse moo dafa wàññi quoi. dafa ca bàyyi balaata. ma dara. moom français. non moom français la. dégg nga maanaam. am na loolu am na français. wala su ma doon kii wala su ma. waaw. am na

ba tey ñu ñëwaat ci commentaire yi wax dëgg fa yàlla waaw moo xawoon am benn kii nii rek mais bon mujj nañ ko waxtaan rek si jàmm mbokku internet yi ñuy seetaan ba léegi rek ñu ngi fii ci buntu kër Modou Lo yéen leen dën man nag lépp lu fi am li nga xamante ne nii yéen war ngeen koo bëgg ngeen koo gis gis ngeen kooku ba léegi mu ngi toog di gas ah, ba léegi ñu ngi toog di gas moo nekk noonu ndeysaan loolu moo jaaxal lan lay gas sànq ba léegi nag ñu ngi gas fii yëpp dañ koo gas ñoo ngi gas ñoo ngi suul lamb moo doy lam lamb mel noonu lamb dafa nekk affaire boo xamante ne nii dafa dafa dafa dafa bëri mystique oh, gis nga yaay yaay moo doo ngi noonu di dem yaay moo doo ngi noonu di dem moo sol lu balan li ndeysaan toogul taxawul victoire rek lay gis ñi ànd ak moom victoire rek la ñuy gis si nga Modou Lo Modou Lo ngi noo léegi rek Modou Lo génn incha allah ngeen gis ko dinañ naan ngeen gën a taaxerlu ngeen dugg ci commentaire yi nag ñu waxtaan ngeen wax seen abi ci làmb ji ngeen gis nan ngeen gisee làmb ji nan ngeen yaakaar seen mbër ñi nga xamante ni ñoo faral Modou Lo ak ñi nga xamante ñoom ñoo faral Siteu mais mbooloo parti bi Modou Lo la ñuy xaar wala ñu ngi ñëw non mbooloo mi ñoo ngi ñëw. mbooloo mi ñoo ngi ñëw xam nga ne Modou Lo moom supporter yu mu am macha allah. réew mi ko réew mi yëpp ko bëgg. wala si galaaju saa Touba. galaaju moo tuddee sa waa léegi nga gis ko fi de xam nga moom day jékki-jékki rek fële. kenn moom saa Touba. gis nga ñu ngi ñu ngi indiwaat ñu ngi indiwaat beneen kii di xool di di pour gën koo fataat. waa lii lan la lii lan la la nañu ko won rek ñu xool mais mais tôt ou tard dinañ xam lan nag ndax foog ñu génneel ko ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan pexe sur pexe la dinañ dinañ leen ko won de dinañ ko xam lan la ñuy denc fii lan la ñuy denc fii lan la ñuy denc fii lan la ñuy suul fii petit loo lañ ko petit loo lañ ko muuree nag man looloo ma jaaxal. moom ma ja ani i loo pour pour ñu indi photo ba fii nii. di ko nëbbee lii petit loo petit loo lii lan la lii lan la lii lan la lii lan la. jigéen yaa lii lan la. mais lii lan la mais lii lan la ndeysaan lii lan la lii lan la man kay looloo ma jaaxal lii lan la bu ñu ko waxoon rek bu baax mais nag ruq boobu sànq ba léegi ñu ngi fay gas di suul sànq ba léegi ñu ngi gas foofu di suul xoolal Pape a ngi ci côté bi Pape Diouf a ngi ci côté bi di yëngal wante wante li nekk fee foog ñu won leen ko li nekk li nekk fii foog ñu won ko loolu rek lañ bëgg a xam fu mu nekk nii ndeysaan lan la ñuy nëbbu lan la ñuy nëbbu li ñuy nëbbu fii lan la gaay madame Diouf mi ma mu ngi noonu ci suuf. yan ma waaw. borom tene ñu ngi foofu noonu. tey làmb ji. làmb i làmb ji mystique ngi nii. làmb ji yi. seetaan Dakar Dakar plus ñu leen di nuyu bu baax baax a baax. di wax ne ba léegi rek ngeen ñuy continuer di ñu suivre lépp lu am fii ci buntu kër Modou Lo ñu won leen ko. gaa yaa ngi noonu ba léegi ndeysaan sëriñ baa ngi noonu génnaat na sëriñ baa ngi noonu génnaat na sëriñ baa ngi noonu génnaat na sëriñ baa ngi noonu génnaat na sëriñ baa ngi noonu génnaat na mu ngi noonu di bàkku ay waay ay waay ay waay fii fii dina neex bay amaat fii dina neex trop waay ko jële ndaw ko jële ndaw amul bu set moo kii yoon déedéet déedéet ndeysaan ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ah di leen nuyuwaat tey bii lamb lamb ji lamb la ci lamb yi de ji lamb la ci lamb yi lamb ji nar neex a nekk nii Modou Lo xam bu jógee parcelle yëngu Modou Lo bu jógee parcelle yëngu Modou Lo su jógee wàll Lac Rose yëngu Modou Lo su jógee Ndakaaru yëngu Modou Lo nga xamante ne ñëpp ko bëgg ndeysaan wante mu nar a boole la kenn xam moom la kenn xamul Modou Lo ah, mais ñu ngi yëkkati lii lii lan la lii lan la na yëkkati rek ñu xam lan moo xew fii ah mais gars gat gas nañ ko. mais fee dañ dañ koy gën a dañ koy gën a dafa mel ni dafa mel ni dañ koy gën a sécuriser. dafa mel ni dañ koy gën a sécuriser. waa lii lan la. waa lii lan la. lii lan la. foofu la wax. dañ ndeysaan ndeysaan. amee lii doy na waar. lii doy na waar. lii doy na waar trop. ba léegi ñu ngi làq ba léegi ndeysaan gis ngeen gis ngeen fii ambiance bu fi am